leen di saraxoo di leen ñaan pour ñun ñëpp ñu bokk ànd xam li xew xam lan lañu jànkoonteel partager leen pour ñi nga xamante ne ñu ngi nelaw ñu mun a dégg lan moo xew dafa am solo parce que xeex bi comme ni ma amee habitude di leen ko wax xeex bi gañe nañ ko waaye <clears throat> li tax xeex bi gañe nañ ko ba léegi jëlaguñu kub bi mooy li des ci ñu war a comprendre dañoo bari parce que ñu bari si ñun comprendre guñu parce que ñooñu ñooñu ñëpp bu ñu comprendre suñu ennemi dafay daw suñu adversaire ki ñu jànkonteel dafay daw ñooñu nag nga xamante ne comprendre ñu ñoo tax bis bis sori pour ñu jël suñu coupe bi sama gars yi démb dama déglu vidéo France ñu jël ñi nga xamante ne ñoom ñoo am xam-xam biir France ñu jël ñi nga xamante ne ñu ngi ci Sénat français ñu jël ñi nga xamante ne ay député lañu français ñu jël service secret français yi ñu jël ñoo xamante ne ñu ngi ci gouvernement français boole ab cocktail boo xamante ne bu am doole ñu ne dañuy réunion naka la ñuy def ba ñoom ñu dellu tegaat loxo ci Afrique ba ñoom ñu dellu tegaat loxo ci réew yi nga xamante ne réew yooyu ay réew yuy làkk français lañu te ñoom ñoom moom réew yooyu naka la ñuy def ba ñu conquériraat ba ñu coloniser waat réew yooyu vidéo bi démb dama ko déglu ma dellu dégluwaat ko dellu dégluwaat ko samay nelaw jeex samay nelaw jeex ma ne lii may déglu dina ko yóbbu partager ko ak samay mbok pour ñu dégg ko français yi waxtaan nañu ak seeni nitu xam yi waxtaan nañu ci mbirum visa yi ne nañu ñoom ñu xañ ñu ñun ay visa erreur la ci ñoom parce que ñun dañ leen a bañ ñoom ñu xañ ñu ay visa erreur la ñu dellu ñoom waxaat ci mbirum immigration ñu dellu wax ci mbirum étudiants yi étudiants yi nga xamante ne ñu ngi leen di xañ pour ñu ñëw di jàng France waxtaan nañu ñoom ba waxtaan ci mbirum franc CFA bi loolu yëpp kenn ku nekk ci ñoom borom xam-xam yi jóg nañu wax kenn ku nekk li nga gis li tax ñoom ñi perte Afrique seen réunion bi yàgg na trop <clears throat> daanaka pour ñoom. dem nañu ba ñu jàpp ni ñoom amuñu conscience ni ñiy buggatuñu traité dara si ñu ak ñun bàyyil kon ñun ñu dem def ak ñoom li nga xamante ne mooy gagnant gagnant def bu modere bi ak ñoom Ousmane Sonko ak ñi tane tuuti waaye déedéet ñoom xalaatuñu loolu de ñoom nee nañu naka la ñuy def ba ñu delloo influence bi ñu amoon ci biir africain yi ci laa wax ni mais ñii amuñu xel. ñii amuñu xel problème bi du problème influence problème bi mooy am na ñoo xamante ne ci africain yi nee nañu bëggatuñu bëggatuñu gis lu mel ni ab dirigeant français mu ñëw bokk ci li nga xamante ne mooy seen business ñoom ñu toll ci xalaat ni ñoom dañu bëgg a dellu si waat influencé ñoom xalaatuñu gañaa gañaa de ñoom dañu bëgg a influencé waat vidéo boobu laa déglu démb ma ne nag daa ñëw partager ak yéen loolu nga xamante ni dégg naa ko démb si guddi français yi di ko waxtaanee ci waxtaan bu sérieux seen biir kër naka la ñuy def ba delluwaat nootaat africain yi moo tax bu ñu gisee ay ay ay ay société civile wala ay syndicat wala ay journaliste ñu taxaw biir Burkina Faso wala biir Mali di naan dañuy dañuy manifester parce que liberté amul foofu dañuy wax ni ñoom xamuñu lu xew ñun ci xeex lañu nekk ci guerre guerre bu amee da ngeen di teg lépp li nga xamante ne liberté la ngeen fexe ba réew mi am jàmm ngeen doog a ñëw di revendiquer seen droit fii la tubaab yi toll ak ñun fii la tubaab yi toll ak ñun. ñu ngi waxtaan seen biir naka la ñuy def ba nga xamante ne ñoom danañu mun a contrôler wat Afrique ñun ñu toog di nelaw di wax ni ah ñun dañoo am liberté. dañoo am démocratie dañoo am syndicat dañoo am société civile dañuy am droit yoo xamante ne dañ koy laaj ay président yoo xamante ne ñu ngi xeex ak ay terroristes ci biir désert bi pour dëkk bi mën a am jàmm pour ñu doon lekk ay xob ci àll bi di gas ay pax di rey ay janax pour mën a lekk parce que terroristes yi dàq nañ leen seen kër yi tongal nañ leen rey nañ yeneen mbokk yi yéen ngeen nekk ci capital bi naan da ngeen di xeex ak Assimi Koita da ngeen di xeex ak Ibrahima Traoré da ngeen di xeex ak euh, général Tiani parce que joxuñu leen seen liberté tubaab yi ba ñuy xeex ak Vladimir Poutine télévision Poutine yëpp la ñu tëj Poutine ba muy xeex ak tubaab yi télévision tubaab yi yëpp la tëj si xeex la ñu nekk liberté la ñu manqué boo leen manqué liberté wala boo leen amul jàmm journaliste buy far ak beneen ennemi wala buy wax dëgg amu fi place société civile buy far ak ennemi bi wala buy ñëw fii dinaan ay dëgg laa fii andi amul si place am li fi am place mooy nañu xeex ba am suñu jàmm lii laa leen andi loon gars yi ñu ngi préparé ñu ngi préparé bàyyiw ñu li nga xamante ne mooy seen culture maam naka la ñuy songee ba jëlaat ñu ba contrôlé waat ñu lii mooy vidéo bi ma déglu démb bi mooy benn bi sama gars yi deuxième bi nag. <clears throat> fexe leen ba kenn ku nekk nga seetaan ko dafa am solo dafa am solo deuxième vidéo bi fexe leen ba kenn ku nekk nga seetaan ko dafa am solo boo seetaanee vidéo boobu da ngay comprendre ne si sa ngir si sa giiru dundu dootoo ñemeeti waxati man. deux mille vingt quatre lay xaar soo leen fi bàyyee Macky Sall man dootuma bokkati ci xeex bi damay bàyyi dem sama yoon boo seetaanee vidéo bi boo ko dégloo dootoo waxati man de découragé naa ci xeex bi boo seetaanee vidéo bi di nga xam ni yow sa moromu nit moo la tënk def la jaam. di def lu ko neex yow nga nar a tëdd nelaw bo seetaanee vidéo bi di nga yërëm suñuy mbokk ci senegal ci biir réew ma boo seetaanee vidéo bi di nga xam ban tànk ngay taxaw pour nga mën libere sa bopp libérer sa sa sa sa sa réew le patron de la DSE service secret français la mafia française envers l'Afrique patron ki nga xamante ne moom mooy France Afrique mooy naka la ñuy organiser pour noot africain yi naka la ñuy organiser pour rey africain yi naka la ñuy organiser ba kenn koo xamante ne bëgg na jël nguur gi en Afrique te ñoom duñ bëgguñu ko duñ ko jox nguur gi kooku nag moom moo jël kàddu démb di wax lan lañu organise ci mbirum dëkk yi nga xamante ne mooy dëkk africain yi li xew ci biir Afrique ba noppi ak liy waaj a xew ak li nga xamante ne ñoom moom la ñuy taxawal ci biir Afrique loolu la kooku démb ñëw toog en plein débat ñu jox ko micro mu nekk ci digg bi. mu mel ni kuy jëfur dem bu lekk nit ba pare di wax man ma déglu ko ma tiit ma déglu ko ma ragal ma déglu ko ma daa di il faut ma continuer di xeex il faut ma continuer di xeex lan la waa ji wax démb patron de la DSE service secret français ñi nga xamante ne ñooy organiser li gën bon te mu dem retraite kooku moo toog démb di wax fexe leen ngeen xool vidéo boobu xam ngeen lu wax sama gars yi partagé leen vidéo bi partagé leen audio yi pour suñu askan mën a comprendre dam leen koy ñaan parce que xaw ma ne affaire bi man fi ma toll foofu la leen toll waaye ku comprendre ni man ni ma comprendre billahi doo toog seconde sa kër di seetaan bi li ma yàgg te dama koy répété di ko répété nee naa leen ci benn panel nee naa leen Amadou Ba moom la France soisir pour teg ci bopp Sénégal même bu ñu naree dox ci ay néew dinañ ko imposer Sénégalais pour Amadou Ba mi nga xamante ne mënul wax amul discours du xool nit day sëgg di dox ab miikër la ab sàcc la ab bandi la ab reykat nit la kooku la France tànn ba noppi daal di wax ni kooku lay teg ci bopp réew Sénégal parce que kooku la France gis ni su ma ko nee jox ma pétrole Sénégal moom dina yëkkati essence gaz zircon or diamant uranium lépp dina ko jox te fekk France gaz rekk la ko laaj ambenn waay jóg weddi ma ci biir benn panel mu ne ma xaw ma nooy xalaatee mais Amadou Ba mi nga xamante ne mu ngi en retraite këram. man gisuma naka nga ñuy gëmloo yi du Ba moom mooy mujjee nekk président wala moom la France tànn pour ñu nekk président loolu ay waxu naka sa xandang la lii la ma waa ji wax ci benn panel tey patron DSE bi bi mu ñëwee toog dafa wax ouvertement ñëpp dégg mu ne au Sénégal la France a choisi Amadou Ba pour être le président du Sénégal démb la ko wax démb en plein tout le monde ñëpp di ko dégg mu ne bu sonn France toog na waxtaan na ak Macky Sall wax nañ ko ni ñoom ñoom France sonn nañu ci affaire troisième mandat bi Macky Sall na teg troisième mandat bi ba pare mu andil ñu Amadou Ba parce que ñoom France Amadou Ba la ñu bëgg. démb la leer nañ ni France ñoom ñoo wax Macky Sall bugguñu nga présenté parce que boo naree présenté au Sénégal dina metti te ñun dañuy ñàkk comme ñun dañoo nar a ñàkk Sénégal te yow ñun ñoo la fi teg dañu bëgg nga dindi teggi sa tànk si mbirum troisième manda moo tax li ngeen di gis Macron ak euh, Macky Sall barki démbo Macron di ko félicité parce que nee na ko waaw yow léegi Macky Sall a nii nee na du def troisième manda félicitation moom lii mooy démocratie ñu ngi lay félicité c'est du cinéma c'est du cinéma cinéma la ñoom artu artu nañ ko ba pare artu nañ ko ba troisième mandat parce que xam nañ ni boo ñu yóbboo troisième mandat dafay gën a metti si ñun jógal fii génneel ci place bi te tegal ñu amadu Ba kon France dafa choisir Amadou Ba moom lañu ñu bugg a imposer quel que néew yi war a dee ci biir Sénégal Amadou Ba mënta am benn benn chiffre mënu ko am. Amadou Ba benn candidat munu ko woteel benn benn benn militant munu ko woteel mënta am benn carte mais li ñu defoon Côte d'Ivoire moom la ñu bëgg a def Sénégal mooy Alassane Ouattara juróom benn pour cent nit ñoo wote ñu ne Alassane Ouattara moom moo gagné sur les les cent pour cent carte de vote yi nga xamante ne ñoo waroon a am Côte d'Ivoire six pour cent ñoo voté six pour cent cela veut dire motul sax un million. de personnes ñi voté Côte d'Ivoire ñu ne Alassane Ouattara moo gagné loolu lañu ñu bugg a def senegal loolu moom la ñu bugg a def senegal léegi nag comme fexe nañu ba dindi Macky Sall pour amortir li nga xamante ne moom mooy résultat bi mën a calmer sénégalais yi léegi ñu andil ñu Amadou Ba forcé ñu ko comme niñ ko defoon Côte d'Ivoire. léegi nag ci forcé bi nga xamante ne defoon nañ ko Côte d'Ivoire dañuy si laxasaale boobu dañ ci laxasaale li nga xamante ne moom la ñu defoon Niger Niger ba nga xamante ne président bi mu ngi wàcc ba ñu ne bul présenter troisième manda dañoo wax président bi jàppal ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko bi tëj ko français ñoo ko wax waa ji ñu accusé ko de viol de trafic d'organes ñu jàpp ji fexe ba tëj ko buñ ko tëjloo ñu libéré ko dawloo ko mu dem France foofu nag France ñu ko foofu ne ko bu ñibbisee dañ koy jugé système boobu lañu ñu bëgg a pratiquer ci Ousmane Sonko France moo joxe ndigal pour ñu jàpp Ousmane Sonko démb la gën leer. démb la gën a leer parce que boo xoolee Macron ci plateau bi nu muy waxee ak Macky Sall pour wane ni Macky Sall il a tous les opposants c'est une élection avec tous les opposants du Sénégal c'est pour wane ni ki ñu bëggul kooku du présenter kooku ñun jàpp nañ ko parce que Macron nee na Sénégal dinañu def élection avec tous les opposants du Sénégal waaye liimul ni kenn mu ngi ñu tëj koo xamante ne ñun ñoo ko ordonné pour ñu jàpp ko système Niger bi moom la ñu utiliser si ñun balaa Mohamed Bazoum di jël di jël pouvoir bi ñaari système la ñu mélangé système Côte d'Ivoire bi même bu neree cinq ñooy voté dañu naan Alassane Ouattara moo gañe loolu la ñu bëgg def Sénégal même bu nekk cinq nit ñoo voté naan Amadou Ba moo gagné beneen bi mooy bu Niger bi liñ ci mélangé mooy oposan Niger bi waroon gagné dañ ko jàpp tëj ko ba noppi exilé ko en France moom la ñu bëgg def Sénégal jàpp nañ Ousmane Sonko France joxe na ndigal pour ñu jàpp ko tëj ko bu ko defee ñu ne opposant yëpp ñoo bokk ñoom ñoom Khalifa Sall ñoom ñëpp ñu autoriser leen ñu bokk pour mu ne légitimité élection yi ñu waaj jëm lii laa seetaan démb comme vidéo mu naqari ma metti ma may wax samay mbokk na kenn ku nekk nga xëcc sa tubéy ba ci kaw na kenn ku nekk nga takk sa sér ba ci kaw ci xeex la ñu nekk contre la France waxoon naa leen ni ñun xeexuñu ak Macky Sall France lañuy ñuy xeexal ñi am intelligence tuuti waxoon naa leen ni xeexuñu ak Macky Sall France la ñuy xeexal kon ko fi taxaw di naan damaa découragé ak sénégalais yi xeexuñu sénégalais yi génnuñu maa ngi bàyyi xeex bi man découragé naa man 2024 dootuma bokk di nga bàyyi say mbokk si coono France continue di leen noot ba yóbboo ñu takk tubé yi takk caaya yi takk ngembay takk silip yi jàkkaarloo ci xeex bi ak France bu ñu bëggee am lu ñu li waa Mali am.